Adja Samir ñu ngi lay nuyu bu baax euh, ñu am mbégte di la dalal ci interview bi nga xamante ni accordé nga ko suñu site bii di Sénégal set di fàttali ne yow yaay coordonnatrice euh, Petrotim euh, Monde ñu am mbégte bu baax di la dalal ci Sénégal 7 bëggoon a xam d'abord avant tout lan mooy Petrotim Monde. di nuyu waa 7 Sénégal 7 di leen sargal bu baax di di kontaan ci invitation bi. Euh, Petrotimonde ay doomu ndawu réew Sénégal la ñi nekk bitim réew ñi nekk Sénégal ñu rencontré wu ci réseaux sociaux yi euh, di waxtaanee suñu suñu réew ak politique bi ak li fi xew ak santé bi ak euh, lépp luy xew daal toutes les questions importantes yi nga xam ne suñu réew mi ngi jànkonte ak moom donc ci kaw loolu ñun ñooñu di waa Petrotimonde Euh, ñu doon ñuy waxtaan pendant ay at yi ci ginnaaw di waxtaan di bokk ay jotaay di réfléchirandoo ba mu yàgg ñu ne ndax duñu apporter suñu pierre à l'édifice euh, de la construction de notre nation donc ku ci nekk ci ñun daal di ñëw ñu bokkoon euh, yëkkateendoo fas yéene doorandoo maanaam lépp lu soxal Sénégal te ñu mën ci artu wala ñu àddu ci mbaa ñu joxe ci suñu xalaat ak suñu proposition ñu daal di koy euh, jël réfléchir si def ci ay recherche waxtaan si daal di ko bokk ak internet yi bokk kook sénégalais yi euh, ci loolu la Petite du Monde juddu ñu daal koy ñu daal di may jël man euh, ne ma nekk coordonnatrice bi fii ci Sénégal waaw à aussi que benn jigéen laa ci seen biir aussi que waaye Petrotim ay ay ay boroomi xam-xam ak ñu seen xol ñu seen xel sell ak seen xalaat sell ñu jëmale ko ci suñu askan ak suñu avancement wu réew ñoo fa nekk. Euh, depuis processus électoral bi mu commencé comme euh, def nañ ci ay jéego yu bari nañ fi campagne bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee woon ma carte ma voix ñu daal di koy def ci euh, langue nationale yi am Sénégal yëpp daal di ko tasaare ci réseaux sociaux yi tasaare ko ci biir dëkk bi def nañ fi aussi ay campagne de sensibilisation yu bëri ci processus électoral bi pour clarté wu fichier électoral bi surtout parce que bëri woon na jiixi jaaxa yu sénégalais yu amoon ci problème mu fichier bi ci problème mu cartographie électorale bi ci problème Euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ni moom dafa bokk euh, euh, parti au pouvoir waroon organiser élection yi mu indi woon ay jeexi jaaxa ci bopp sénégalais yu bëri ñun d'ailleurs Petro Timon bokkoon nañ ci collectif des citoyens sénégalais yi nga xam ni jógoon nañ pour ñaan président de la république que mu am un organisateur neutre pour ces élections là waaye moom gis nañ ni dégguñu woon ci loolu nanguñu woon dégg te dem na ba ne du ko def du ko def du ko def loolu loolu la waxoon ci benn interview ne du ko def du ko def du ko def donc tout ce qui ñun xam nañ ko mais Petrotim tout au long de du processus électoral dox nañ ci ay jéego yu bëri ci réseaux sociaux yi ci biir population yi ci campagne yu bëri euh, di ci dox di ci wax di leeral nit ñi euh, njariñu dem vote ji donc mën nañ na tey taux de participation bu foor bi ñu am bi ñu fort bi ñu am ci élection yi ah, bu dee benn pepp sax ñun euh, def nañ ko ci te ñu ngi koy sante yàlla di ci fier tamit en tant que mouvement sénégalais euh, bi nga xam ni euh, bi ñu juddoo yàggul lool waaye ñu ngi dox ci jéego yu jéego yi sensibiliser jéego yi xamle suñu démocratie suñu démocratie jéego yi dox ci lépp euh, lu lu lu war a jaar yoon rek ci Sénégal muy ci wàllum liberté ci wàllum démocratie ci wàllum transparence euh, ñu ñu ñu daal di koy doxal d'ailleurs ci kaw transparence boobu euh, li gën a tax Petro-Tim Monde tey juddu parce que boo déggee kàllaama gi Petro muy pétrole team muy équipe noonu lañ tuddee woon suñu bopp maanaam parce que dañ doon dañ doon euh, wax ci ak saytu mbirum hydrocarbures yi ak suñu contrat pétrolier yi jotoon yi ñu président de la république jotoon signé ak suñu contrat gazier yi aussi euh, de même que suñu contrat minier yi ñu xool ni saytu ni Sénégal lim ci am néew na te euh, peuple sénégalais mérité na xam dëgg dëgg dëgg li xew ci mbirum mbirum euh, hydrocarbures tey jii sénégalais booba sax euh, comprendre ñu ni sénégalais Sénégal moomatuñu dara ci suñu pétrole tey donc. waaw dialogue de dafa war a am ndax dëkk moom euh, duñ dañuy faral di dégg suñu maam yi suñu mag yi di wax naan euh, ab dëkk kenn du ko pénc duñ ko pàccoo dañ koy péncoo tey nag bu euh, le président élu ne dañ dafa dafay woote ab péncoo ah dinañu neex ñu ñu dégg loolu ndax société bu ne ñaan na yàlla jàmm ci bim ci ci ci ci ab réewam waaye nag dañoo gëm ñun Petro-Tim Monde que dialogue mënta am sans au préalable tey ñu teg ay conditions maanaam étudier le fichier électoral immédiatement dinañ si dellu si peut-être étudier Euh, daal di euh, demander au président de la République monsieur Macky Sall de faire une déclaration sur l'honneur maanaam mu mu mu taxaw waat ni moom du prétendre à un troisième mandat ndaxte bu ñu fàtte ni euh, problème amoon na Sénégal dëkk bi tàng dëkk bi jaxasoo ndax euh, président Abdoulaye Wade kat dañ ko dafa ne woon dafay briguer un troisième mandat mu jaral sénégalais yi ñu dem place de l'indépendance mu jaral sénégalais ñu dem place de l'obélisque mu am ci fukki nit ak ñaar yu ñàkk seen bakken di xeex loolu nga xam ne moo doon troisième mandat euh, maître Abdoulaye Wade tey bu ñu demee ba toll fii euh, au lendemain d'une élection présidentielle même pas une semaine ñu toog sénégalais yu bëri seen xel di nekk di jiixi jaaxar day dafa li mu def nii pour pour pour euh, pour prétendre à un troisième mandat la troisième mandat constitution may na ko parce que n'oublions pas qu'une ne n'est pas rétroactive que référendum yi passé am na si benn prox ndoll buñ ci dugal bi nga xam ni tey dina ko dina ko permettre moom mu ne mën naa defaat beneen cinq ans à part bii nii donc ñu koy ñu koy euh, ñu ñu bëgg tey bu ñu demee ba war a toog ne dialogue moom ngir dalal xelu Sénégalais yi ngir Sénégalais yi mën a tourner ci liggéey réew mi ci juróomi at yi di ñëw na def déclaration sur l'honneur mu renoncer ab briguer un troisième mandat mu signe ko daal di ko yóbbu conseil constitutionnel ñun loolu lañu la wax troisième chose bi nga xam ni balaa bépp dialogue di am opposition comme pouvoir amuñu droit tey euh, prétendre ci benn dialogue tant que président de la république monsieur Macky jéemul xoolaat suñu contrat pétrolier yi ak gazier yi ndax wax na ko rek ci campagne bi passé nee na dina moom sax dina xoolaat euh, négocier euh, dina renégocier dina jéem a renégocier contrat yi xaw ma ndax mën na ko xaw ma ndax mënu ko waaye ñun de bu amee moo ñu gënal ndaxte Euh, suñuy ressource maanaam euh, liy meññ si suñu suñu suñu suuf si ak suñu si si euh, si suñu alal gi ñu am nga xam ni pétrole la gaz ay zircon or et cetera umpule neen sénégalais yi umpule luñ ci am ak luñ ci amul umpule nañu dafa dafa dañu war a farlu tey ñun sénégalais farlu dëgg dëgg dëgg ci suñu moomeel ci suñu am-am nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk bii boor moomu ko bële boor bëre bëre boor rek du moo ko moom bii boor rek moomu ko ñun ñëpp kuy doomu Sénégal am nationalité sénégalaise ci nga bokk. ko waral a leer tey ci suñuy bopp ñun sénégalais moo tax ma ne dañu war a farlu dafa jot sénégalais farlu ci démocratie sénégalais farlu ci. Euh, politique am sénégalais farlu ci lépp lu ñuy signe ci turam ndax lu ñuy topp la olof njaay dafa ne borom caq du xeexak ku takkul caq du dëkk tey bu ñu nee président de la république président de la république dañ koy toftaloo père de la nation te borom kër gu ne boo amee sa njaboot buggoo di leen dóor waroo di leen dóor di leen xoqatal di dal seen kaw saa yu la neexee wala saa yu ko mënee sax donc boo bëggee jàmm sa kër ba dem ba war a woote dialogue jaloog boobu day sincère sincérité dialogue boobu mooy waral ku nekk sa war a ñëw wuy si la loolu mooy dëgg bu bu waa PDS ak waa xalifa Sall si sa sentent exclus de ce pays kon dialogue euh, nécessité la seeni exigence na ko xoolaat moom papa askan wi ndax président de la république je le répète moom la ñu ne mooy papay askan wi moom mi nga xam ne moom la ñu tuddee papay askan wi na xoolaat njaboot gi ñi ci seen xool neexul wala ñi ci seen xool tàng wala ñi nga xam ne dañoo xalaat ne dañ leen bunduxataal mu daal di leen dajale defar ba mu rafet ndax autant xalifa Sall que Karim Wade ay sénégalais lañu autant que moom monsieur Macky Sall président de la république Sénégal sénégalais la. fii Sénégal kenn ëppalewu fi kenn beneen bi mooy seeni exigence na ko jéem a xool tey ñu bëri dañoo xalaat ni le le sieur Karim Wade dañ ko exilé pour pour parce que pour cause politique ñu bëri jàpp nañ ñi euh, le sieur Khalifa Sall a été emprisonné injustement parce que yëfi politique la donc politique bu mu bu mu tas suñu askan ndax bu ñu bëggee jàmm bu ñu demee bay dox tànki jàmm dafa war a doon tànki jàmm yu sincère yu sincère donc moom mi woote na commencer par cette sincérité boobu te mu joxe gage yi nga xam ni moom laa fi énumérer léegi mooy fichier électoral bi indi jiixi jaaxa indi problème ba nga xam ne tey euh, ñu bëri ñu ngi sikki sàkk moom 58 euh, pour cent am na ko tegaat ci table bi woo ñi mu war a waxal ñu waxtaan ci audité ko ñépp am ci lu leen leer loolu mooy dëgg. <laughs> ah am njiitu réew de defe naa ni ndam la war a bëgg ci askanam ndax bu la ay nit jiitalee naam wóor naam wóoru lekk ñii di ko sikki sàkkaak defe naa la meilleure réponse pour pourrait apporter moom en tant que président de la république euh, duma ci taay di ci wax na renégocier suñuy contrat pétrolier ak gazier muy benn deuxième chose na dajale njaboot gi na fexe ba PIB ak PNB bi ñuy wax ñun sénégalais ñu di ko dégg na fexe ba ñun ñu koy sentir parce que benn sénégalais bu ñu bu ñu ne PIB 6 pour cent yëguñu ko si suñu quotidien na fexe ba doomu Sénégal yi mën a sentir seen bopp ni ay sénégalais lañ jéeg koom bi taxawoon na fi euh, en 2012 ne ñu 500 500000 cent mille lay la bëgg ci ci septennam boobu gisuñu dara ay ASP lañ fi gis ak yenn yi. ñun jeunesse bi na soxla nañ liggéey soxla nañ naam mi maa ñu ngi gis ay formation yu muy def yenn affaire mais dañu bëgg mu mu fexe ba jeunes yi am liggéey te pour jeunes yi am liggéey il faut créer des entreprises il faut pousser à la création des entreprises bokk parce que seen mën na mën nañ ne état du créer entreprise et cetera mais na dimbali ñi nga xam ne am nañ néew tuuti doole ñu mën a créer entreprise embauché ci yenn doomu réew mi ndax ñu bàyyi barça beeg barsàq bi ak àllum euh, libi gi ñuy jël ñu leen di traité ñu leen di jàpp jàmm na fexe ba panier de la ménagère gën a woyof na fexe ba doomu Sénégal yépp am jàmm loolu mooy sacerdosam na renforcer suñu institution na fexe ba pouvoir exécutif mu mu mu fexe ba euh, mu mu séparé wu ak pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire bëri na tey doomu sénégalais yu amul aucune confiance en notre justice tey bëri na amoon na fi ay ndaw ndaw ndaw Sénégal ay ay activiste yu fi demoon ci conseil constitutionnel déposé fa ab cadavre daal di leen la justice sénégalaise est morte et la démocratie sénégalaise est morte yooyu ay acte la yi nga xam ne bu ab peuple ay xale dem ba niveau de conscience xool gis ma tey bi am ci réew mi ba dem def acte yooyu lu jara jël en considération la na nekk président bi nga xam ne day déglu askanam respecté askanam ñun loolu lañ koy ñaan foofu lañ koy xaar aussi